yàlla na fi des yàllal yàlla yàlla jox barke soxna jaara aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu sayidina wa moolana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk yi ñoo ngi fii ci Poroxaan uh, ci bis bu tedd bis bu màgg bis boo xam ne uh, lislaam gépp maase nañ ci xam ko xam njariñ li ak solo si nga xam ne moom la làmboo bis boobu di bisu euh, soxna Mariama Bousso ñu gën koo xam ci jaaratullahi jaaratullahi nag buñ ko déggee rek suñu xel yëpp war naa dem ci xam ne ki ñuy tudd ab jaamukatu yàlla la woon ko àndoon ak boromam la woon koo xam ne ay guddeem ak ay bëccëgam waxtoom yëpp daf ko jeexaloon ci boromam waaye doy na sëkk ñu ne ki ñuy màggal fii ci Poroxaan mooy wayjuru Serigne Touba xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam euh, te Serigne Touba yaakaar naa bi mu waree ñëw ci jamono. mbooleem ñu baax ñi kenn ku ne yaa ngi ibbi woon sa kër ah defaraat saw toogin ngir mën a dalal gan gu baax googu kon nag Serigne Touba fi mu feeñ ah, foofu rek la war a feeñ fa mu feeñ fekk na fa mbooleem axlaax karima yi mbooleem makaarimul axlaax yi nga xam ne boo fa feeñee dee su koo xebeb ci dara soxna jaara nag ak dundam bariwul ci àddina daanaka mën nañoo wax na ci fanweer ak ñett rek la dund waaye jëf ji mu jëf ci àddina moom mooy njariñ li nga xam ne tey képp koo xam ne yaa ngi jariñu ci xéwal gi nga xam ne moom la suñ tubaa indi ci liggéey soxna jaaratullahi mariama bu su nga ko amee waaye it euh, soxna jaare it di gëm ak sëriñ tubaa it euh, fi mu ko tegoon euh, ci ci xolam ba nga xam ne yaakaar naa xasida googu ñuy wax sindiidi boo ko dee jàng boo yegsee ci wa ji nii wa jamia al muslimina maan wa najji walidati amina yallahu ba yaakaar naa xasida gi li muy li muy li bay yi mu doon ñaan yëpp bi mu agsee ci wan na ji walidati ci la doog a wax amin nga taxaw foofu it ab taxaw seetlu gis ne euh, saa suy ñaan dana wut damir joo xam ne daf koy jëmale ci soxna si wax fir lana walaha suñ borom yàlla nga ñu jéggal waaye yàlla nga ko jéggal moom soxna si was wasturma ibana waltuf bina wa biha fil hawli yallahu walbatiku it wax ne suñ borom na nga ko jéggal te yërëm ñu ndax moom kat amul kenn ku dul yow anha tajawas wa iyaana arhamanna fama laha siwaaka wa antal barru yallahu loolu lépp nag liñ ciy déggee mooy soxna si ak teddam ak ak ak ak pësséefam ak sëriñ bi it wàccuwaayu mag wi nga xam ne joxoon na ko ko ndax wa an yej si walidayya xayran yakthuru yaa xaaliqan ma chita ya muassiru yaakaar naa bari na fu bare bari ci xasida yi foo xam ne boo demee di nga fekk Serigne Touba Khadim Rasoul sallallahu alayhi wa sallam di ci ñaanal wajuram wu tedd woowu di soxna Jaaratullahi Mariam Bousso ah ñuy ñaan nag mbokki soxna yi ñi nga xam ne dañuy ñëw ci poroxaan ah, di siyaare si ñoo xam ne soxna si nekkul koo xam ne da ngay ñëw rek raay miir bi ziyaar rek dem dañoo bëgg ñu jéem a jikkowoo jikko yi nga xam ne moom la soxna Jaaratullahi Mariama Bousso jikko woon wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp seen site Tawfekh Production fii ci Porokhane euh, ci atum 2019 di leen ziar kullu am wa antum bi alfi xayri wasalaamualeykum wa wa barakaatu. moo di dey ba mi desi di beñaat teeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neefi tey duñu bew wayu nga te wayu nga te foro nga te fo nga jëlu ma fi des yàllal yow yàlla jox barke